alors une star aujourd'hui euh, ñu ngi fii ci diwaanu euh, Médina euh, tey bu Médina donc c'est xel dina dem ci donc dans Médina mi nga xamante ni fait la fierté donc de cette localité il s'appelle El Hadj Keita moom lañu daal di seeti El Hadj maa ngi laa nuyu. waaw salaamaaleykum Zeka maa ngi lay nuyu di la déwénatil di la baal ak di la baalu ak. di baalu ak sénégalais yépp mhm. di la wax bienvenue à la Médina alors merci beaucoup Elas bienvenue à la Médina donc euh, hein. on va parler de beaucoup de choses on va parler euh, donc de de Elas Keita et son nouveau look hein, comme nous Sénégalais découvrir dernièrement on va parler donc de cette pandémie donc euh, métti trop hein, donc tu ñi nga mais aussi on va parler de ça toute toute dernière vidéo de alors Elas.

loolu rek ñu nekk si yoon boobu am ay conseils tamit di leen déglu. Mhm. waaw moo tax xam naa ñu ñu ñuy gën a defaraat toogin bi daal. kon kon dafa mel ni su ma déggee sa wax dafa mel ni on t'a conseillé euh, pour nga dindi. bien sûr bien sûr bien sûr waaw parce que nit moom da ngay may ay ok comme ni ma conseillé. Mhm. ne ma su ma sañoon daal nga dindi affaire yi. Mhm. ma déglu sama conseil. ma déglu ma diddi ko ñu bari ñu ma naan sa jabar sama jabar tamit ci la ci la bokk moom tamit ci la bokk waaw bëggoon na tamit affaire bi xaw wàññeeku tuuti moo tax ba ma ko dindee ñoom ñëpp kontaan nañ ñoom ñëpp kontaan nañ waaw waaw mais est-ce que c'était facile parce que souvent pour dindi ay lox waaw c'était pas facile parce que tamit yow li look bi ngay bi ngay njëkk incarné nii mhm. yow parfois moo lay gënal moo lay gënal quoi moo lay effectivement moo lay gënal parce que tamit euh, comme loolu lañ ma xamé woon. waaw waaw waaw motax bu dañé day xaw changer tout day mais loolu day wane ni rek xalé day màgg. tamit day màgg alors tu tu wax nga ko sànq ce euh, ce jabar alors comment ça ça ça se passe donc ce euh, ce euh, vie bu bees bi nga xamantene ne ci célibataire dem ci marié. wa alhamdulilah sante yalla parce que kep kuy kuy. doomu jullit yi nga mhm. ñaan yàlla am soxna mhm. am ay njaboot gu barke loolu la ñuy ñaan yàlla mhm. may na nañu soxna ñu ngi koy ñaan njaboot gu barke rek waaw parce que tamit euh, nit ku nekk dangay dangay am ku lay sàmmal sa ginnaaw waaw loolu moo tax te góor boo tolloo ci gën a fi ngay gën a xamee ni góor nga nga yëg nga nga nga yeew soxna dina la dimbali ci yu bari dina la muytuloo tamit yu bari loolu kese la yàlla may nañu ko yalla ñu yalla defal tawfiq mais mais est-ce que madame elle a été euh, est-ce que moom nan la gérer situation parce qu'après le mariage coow li bari woon na tout ça est-ce que moom elle s'attendait à ça d'abord. bien sûr est-ce que moom nan la ko. non xam na xam ni manam artiste du yomb pour nek ak mom motax mhm. tax euh, di da koy gérer da koy gérer dina muñ muñ. Mhm. loolu lañ koy gëna a dénk rek xam nga mom moom neexul benn sëy neexul. déedéet dañuy sant yàlla rek di ko dénk mu muñ rek affaire yi moom muñ rek la mu ngoog en tout cas madame ñu ngi koy nuyu de passage comme ni koy mm-hmm. laaj waxee di ko ñaan mu gën a muñ rek parce que nekk ak ku ñëpp bëgg nekk ak ku siiw dafa metti trop macha allah mm-hmm. mais bon sant yàlla ñu en tout cas ñu ngi leen di ñaanal euh, Seydou bu barkeel lool ak njaboot bu barkeel macha allah alors euh, El Hadj euh, El Hadj ñu ñu ngi ñu ngi dund li nga xamante ne mooy covid 19 mm-hmm. ñu nekk en plein plein pandémie donc ça fait presque 5 mois ñu jëm 6 artistes joué wul yéen ñëpp joué leen nan ngay dundee loolu. c'est dur c'est dur ah. c'est dur mais sant yàlla. Mhm. parce que nattu la. Mhm. nattu la dañuy gëm yàlla nag. dañuy gëm yàlla xam ni nattu la dañ ñu ko yàlla suñu borom moo ñu ko teg. dañ koy nangu rek parce que euh, ñun tamit am na ñu nekk suñu ginnaaw parfois ñooñu rek la ñuy xalaat. mais comme yàlla mi ñuy suturaat rek. du ñu jox lu ñu dundee rek. dañuy sant yàlla. ah di ñaan mu jóge fi. parce que lii mom ben médecin mo ci mën dara. Mhm. muy suñu borom. le chef suprême le gardien de la foi. mom rek ah le médecin des médecins mom rek ci mën dara yalla nako safara saafara. Mhm. waaw loolu rek la ñuy ñaan waaw ñu delluwaat suñuy activité métti trop. parce que parce que des fois ça t'arrive pas nga craquer nga toog benn moment yow kese nga craqué. Euh, non non nga caalit non non pas caalit parce que tamit ben heure bi nii xam nga da ngay gëm yalla mhm. nit mom bu dara ñëwee da ngay gëm yalla même boy jël. même booy jël 1000 francs sax di ci sombi ah def sa soow naan sant yàlla ne alhamdulilah waaw chaque jour yàlla mën na lay jox sumbi boobu effectivement da ngay gëm yàlla rek xam ni suñu borom la loolu kese la loolu lu mag moo ñu dimbali ñu gëm yàlla am tamit am ñoo xam ne tamit ñu ngi woo di ñu jàppale xam ni géewuñu comme ku ci mel ni ay Bamba Fall ku ci mel ni Youssou Diall ku ci mel ni Pathé Ndoye Ba ku ci mel ni sama directeur Birane Ndour ko ñu Mbacke Dioum ñoom ñëpp jox ñu xaalis dañu am géo leen metti na am leen teel li mhm. non c'est ça après nga téye xam ni yàlla ñooñu la la booleel mhm. waaw mais rus nañu ñaan mhm. ay gor lañ duñ ñaan kenn duñ ñaan kenn waaye ku ñu may ñu jël dëgg la dëgg la alors euh, rus ngeen ñaan euh, je sais ndax ndax déglu nga ko euh, bi Waly sekk naan dafa dafa leen gën a fonk dafa gën a fonk rakkam yi ma koy nuyu da passage te nee da ngeen a diiñ Mm-hmm. li mu gis ci yéen neex mm-hmm. waaw ma koy nuyu de passage moom mm-hmm. tamit ku ku yàlla baaxal la dëgg ndax tabaski bi rek woo na mënoon na ko bañ a def mënoon na ne LH Keita day jënd xar mais mu def geste bu noble ñoo jox ma xar ma ko ci remercier di ko ñaanal yàlla moom tawfeex ndax dafa def yëfu mag yëfu mag parce que mag boo jiitoo ay rakk rek da di wan ni man maay mag dëgg la te ñun ñun <clears throat> yàlla def na ñun ci chemin boobu la ñuy topp li ko suñu papa Youssou Ndour waaye doom respecté mag ah. Mhm. doom doom doom lan. Eh, rakk day topp mag waaw rakk topp mag. Mhm. doom respecté baay. waaw ñun loolu la ñuy jëfee. Mhm. moo tax je le remercie sama mag sama xarit. di remercier suma papa yi tamit yi may defal. teranga macha allah. macha allah mm, te bëgguñu ma tudd seen tur. ndeysaan waaw c'est vrai mm. am na ñoo xam ne bëgguñu ko leen tudd. alors Covid 19 bi euh, yow ban jàngat nga ci def en tant que artiste en tant que ni ku nekk ci showbiz. Mm. Euh, donc yow ban jàngat nga ci am ci yéen ci seen ci seen liggéey. ban jàngat mooy sunu mooy mooy mooy mooy moytu. Mhm. mooy ban moytu parce que parce que loo xam ne yàgg na. Mhm. léegi mu def cinq mois wala. waaw bu ko deful. mu ngi dem ci six mois yàgg na mhm. yàgg na dinañu moytuloo dinañu wax dinañu xamal loo ne tamit ah, jàpp ci leneen daa wóor. jàpp ci leneen parce que mën nga way kese mais mën ngay jàpp yàlla ci leneen. loolu yee nañu ñun ñii waykat yi. ma man mhm. yee na ma ci benn côté di nga xam léegi lan nga war a def ak la war a loo warut a def mhm. ak bu dara xewee nan nga war a toogee mhm. loolu jàngal nañu lu bari daf ñoo yar feebar bi daal daal yar ñëpp yar na ñëpp waaw yar na ñëpp loolu képp la alors euh, l'État a dégagé benn benn aide financière jëmale ko ci yéen coow li bëri trop donc entre ñi nekk SODAV ñi nekk euh, AMS ak AME xaw ma ak ñi les non alignés yow ci ban nga bokk sa yow. sodaaf nga bokk wala man man nak man nak sama ménagère moo géré yooyu. waaw waaw biram. Mhm. mom moo géré yooyu. ok man moom géré wu ma loolu moo ñu bari dañ ma ci laaj poser question man ne yooyu nonu mom ok man mom yalla lay dundé waaw suñu borom momay jox li may am. mais Biram dem nañu jox ko mu indi ne la ah ila Hadj jox nañ ma li Biram bien sûr bien sûr mom jox nañ ko jox nañ ko mané ko waaw ay ci gérer. ok ñu wara war a gérer am na tamit samay musiciens ñu. ñu jox. ok ñu am nañu ñoom tamit kontaan nañu woo ma ma. Mhm. mais xam nga man moom comme way laa kii. Mhm. du ma lijjanti affaire xaalis. dëgg la waaw man moom je suis un artiste maa ngi way. ngay mhm. concentré sama job. moo tax gars yi par instant dañu lay jéem a sax dugal ci polémique naan la lu tax lii wax lii wax lii sa mën a fii ku ci nekk rek sa liggéey ala kulli haal li nga war a lekk da nga koy lekk. waaw ñu bari dañuy naan sodaaf sodaaf sodaaf. te sodaaf mi def li nga a liggéey. noonu la demee ku ci nekk na nga liggéey rek. yalla fi la fi ngay fi ngay liggéey la la suñu borom di la fekk ak ay xew waaw ñu loolu la ñuy dund ko dëgg la alors euh, tey bu ñu demee ba gis que ne euh, ñu ñu joxe 3 euh, milliards hmm. ñu seddale ko le secteur de la culture hmm. ñu gis que ne les arts se sont retrouvés ak somme yoo xam ne bëriwul donc ce qui veut dire que ne yéen da ngeen bëri hmm. da ngeen représenté benn secteur boo xamante ne dafa macha allah bëri ngeen donc tey est ce que tey jotul kon tey ñu remettre en question xool ministère de la culture xool ni ñuy formaliser yenn acteurs yi même bu dul directement woykat yi sax seen instrumentaliste yi. wala technicien de surface yi. est-ce que jotu tey ñu xoolaat ben ben benn manière boo xam ne dinañ jéem a wut fu leen dugal quand même pour couvrir leen. Mm-hmm. waaw loolu tamit ah, xam-xam la comme ñom am na ñu jiitu. Mm-hmm. am na ñu jitu ci aar. Mm-hmm. man foofu lay waxee am na ñu jitu ci aar te ñu ci. dëgg kon ñun xalé yi. leen déglu. mais ñi leen jiitu est-ce que yaakaar na ñoom voilà peut am na nit ñi am ba pare. no yéen vous êtes l'avenir de la que comme man moom laa la doon waxaat léegi ma répété waat ko. waaw mooy mooy doom doom respecté mag waaw doom doom. waaw respecté bàyyi mag respecté mag. loolu moo boobu noonu daf ma neex moo tax disons chaque jour dama koy wax mais dama ciy juum. Mhm. noonu la demee parce que man loolu laay dund. Mhm. man ñi ma fi jiitu. Mhm. dem tooguñu. wax ci loolu. kon man xale.

non ñun xale yi dañu am fit wax man maa ngi ci ginnaaw mag bu ñu waxee ma wax bu ñu waxul du ma wax waaw <laughs> ah, kay topp seen ginnaaw rek mais est-ce boo demee ba nekk mag du trop waaw loolu mooy àdduna loolu mooy àdduna parce que loolu mooy da ngay nangu nit da ngay nangu ku la jiitu ku la yilif waaw ku la yilif mhm, ñun dañoo topp ci ginnaaw mag yi am nañ fi ay mag mhm. suñuy mag ay waykat mhm. comme ay Pape Diouf ay Waly ah suñuy mag lañ ñoom waxaguñu ñun on est mal placé pour ñu wax je suis mal placé. Je mal placé. <laughs> D'accord, merci beaucoup. Alors, nous sommes toujours à la Medina avec LH euh, sur euh, euh, Sénégal 5 TV. Alors, je le disais tout à l'heure, on a parlé de la, pandémie, on va, on va un peu parler de, la musique, on va parler de toi, et euh, qui, musique et, et, tout ça. Binfal, et les gens se sont dit que Elasketa a rendu hommage à une brave dame. Mm-hmm. est-ce que yow euh, comment est née cette waaw ide bi noonu la demee ah, benn jour. Mhm. dama jóge benn télé. Mhm. ñëw toog di ndekki ma jël sama téléphone naan ko Bine Fall. Mhm. ma sama noonu laa koy woowee ma koy wax Bine Fall. est-ce que mën naa am kaani moom tamit ndeysaan mu naan kaani mu def. ma ne ko biin Fall est-ce que mën a am salade mu defal ma salade mm. ma ne ko Biñ Fall mayonnaise bi muy waaj a def mayonnaise ma ne ko Biñ Fall mayonnaise bi bu ma jege parce que man du ma lekk mayonnaise ah ok ñu bari dañuy defe ne dama ko wax pour fo mais mayonnaise man du ma ko lekk sama yaay bu toggee léegi dam may defaral à part du mayonnaise du ma ko laal bëggu ma ko noonu la demee may wax loolu naturellement mm-hmm. takk suba affaire bi def dem def pas TikTok ma gis ay tubaab ak naar ñëpp di ko TikTok ñëpp di ko TikTok mm-hmm. baxaw ma woo ko rek mu na ma eh Bin Fall <laughs> mu ne ko waaye nu mu demee nii ku ma waxal rek nga ne Bin Fall ku ma waxal ma ne la Bin Fall ba xaw ne ma eh nañ def lii morceau ma ne ko ay ca ah. ma ne ko ayca te fekk na yàgg naa bëgg way Bin Fall ndeysaan ndax moom yàgg nañoo defal teranga ndeysaan depuis ba ñuy fubal yi de la fosse mhm. kër Sëñ Ahma mhm. may nuyu sunu sëriñ mhm. ah mm. Cheikh Ahmadou Karam Mbacke Noreyni ah ci jiital borom daaru Noreyni mm. diwaan bi mm. waaw di ci jiital borom baax ak sama sëriñ si ñax ma fa lañ daan nekk ak soxna Khady bintu Seydina Ousmane ah yaayu yaayu yaayu sëñ Ousmane yaayu Mame Marème ah yaayu Ahmadou moo ñu nampatal moo ñu nampatal ci sukkur laa moo tax ñu bari nag dañu defe ne sikar euh, si foofu laa ko jànge kër soxna Khady ok foofu laa ko jàngee ñu ma ko daan nampatal mm-hmm. moo tax ñoom duñ ko duñ ko mës a fàtte incha allah. Mhm. noonu la demee bu ñu daan dem jugee fubal mhm. dem kër Soxna Xadi buñ dañuy dem ci Bin Fall boobu firir ay 200 lay jar. waaw te léegi ay firir ay ay ay 5000 jëm jëm la de. <laughs> léegi macha allah yokku na yokku na ay 2000. kon Bin Fall ay max sama benn nijaay foofu lay dem pare saa yi Bin Fall <laughs> moom Bokar moomee fa. <laughs> noonu la demee ñu waroon ko rendre omage ñu ñu jaare la ko foofu yàlla bu waree bu waree taal dara rek. Mhm. da koy taal. Mm-hmm. ak ci ni mu ko anam bu ko ne mm-hmm. ba xaw ne ma kaaj def morceau bi ma ne ko ayca mu ne ma foo nekk ma ne ko maa ngi nii sama kër mu ne ma ñëwal kër ma dem ñu bind morceau bi ci saa si ñu bind morceau bi mm-hmm. tat ma xëy suba ma ne ko dañ dem ci laay jaaj ñu dem ci laay jaaj ñu woo musicien yi dugal rek dugal affaire bi génn rek def poum macha allah waaw noonu la demee te te génne woon naa yeneen son mais Bin Fall xoolal yàlla fi mu ko jàllale moo njëkk am un million de vues. waaw si sama yeneen morceau yëpp. neexee. waaw mais mais Bin moo ko parce que yàlla moo leen. Mhm. am na un million de vues mais Bin ko njëkk am. un million de vues moom la moo lay wan ni yàlla. Uh-huh. bu waree taal benn affaire rek. Uh-huh. foofu la koy jaarale. effectivement noonu la demee jaarale ko foofu. Uh-huh. ma ci way nag femme yëpp nga xam ni femme yëpp ay battante. dëgg la képp kuy xëy suba rek di yeewu di teg sa taabal di jaay rek. bin Fall femme yi ci marché yi ñëpp parce que léegi damay romb sax benn booy gis taxaw ci cantine femme bi faatu lay tudd mhm. wala mu tudd awa mhm. mais du ko wax awa du ko wax faatu da koy naan bin faal jéema ma dem <laughs> noonu la demee sa veut dire que <laughs> léegi finalement ñëpp bin faal lañ noonu la demee <laughs> léegi moo tax ñu ñu def loolu macha allah mu jox ñu succès boo xam ne macha allah macha allah xalaatuñ ko en tout cas aussi ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci rendre hommage di ci di wax beaucoup de respect à Bakhaw waaw parce que moom ko ñàkk ñaan non dafa ñàkk ñaan il a fait beaucoup de comme ça moom saa yu gisee loo xamante ne mën na def dara rek il n'hésite pas à mettre sa et tout yàlla daf ko may loolu. Mm-hmm. yàlla daf ko may loolu daf ko may. Euh, may na ko flair waaw mm-hmm. day gis loo xam ni macha allah day kii. Mm-hmm. moo tax maa moom moom suma lépp la. dañ chaque jour dañuy déggante. Mhm. chaque jour. en tout cas ma ma ma tooñaale rek démb maa ngi seetaan vidéo ba mu naan ñun nouvelle génération ma ne ko baxaw bu ne mom nouvelle génération. màgget la dé pa la waxaw ni pa pa bu mag la né day bañ. day bañ suma ko né yow mag nga pa nga mun a boy ma maa gëna gën pa la né na nouvelle génération bi la bokk paa la. <laughs> baxaw ñu koy nuyu diko jox respect bu bari bari mu ngoog alors euh, machallah donc lool moy l'histoire de de Bine Fall que les Sénégalais ont adopté ont aimé et tout ça donc euh, Ouyouma aussi les Sénégalais ont, vraiment aimé. euh, na am na niveau am na mhm. niveau vaille vibe mhm. parce que parce que tamit benn bi ñu ci ñu ngi def ay yeneen technique yoo xam ne gars yi bari. Mhm. boo seetloo sama dernier morceau yëpp day mel day am R&B day am day am hip hop. parce que dañu musique foofu la toll. foofu la toll di jël fi def fii. denc parce que c'est des recherches. effectivement dañuy def ay recherches. te musique bi war nañ ko mën a ubbi. ubbi effectivement pour mu doon international. te ñun rek ñoo ci mën loolu. ñoo parce que parce su ma koy déglu dama ciy dégg yenn air. Hmm. Euh, su ma juumulee dafa mel ni dama ciy dégg airu Mamadou Lamine Mayga. bien sûr def naa ci airu Mamadou Lamine Mamadou Lamine Mayga. def ah. ci airu pap sunu papa Youssou Ndour. Hmm. Uh-huh. parce que Youssou Ndour moo ne woon. xaliso xaliso bajo. Uh-huh. tasaare na maalo. Uh-huh. man ma ne. shiri wa shiri yee shiri bu mhm. fi kii ma la tooñ baal ma mhm. léegi ma jël Mamadou Lamine tamit dafa am ay jamono yu morceau boobu daf ma yàgg neex mooy su booba man moo tax bi ma ko dégloo automatiquement je me suis moo naan su booba su booba su booba su booba su booba su booba weesu ni oh waaw waaw oh waaw waaw su booba weesu naay man ma ne oh papa, oh maman, ni leen ko mu man sonn naa te jaaxle naa may Bon, alors euh, toujours sur la 5 TV nous sommes avec euh, El Hadj Keita fii ci yoonu Médina euh, on a parlé un peu de beaucoup de choses mais fou mu nekk nii dañuy waxtaanee donc le tout dernier wala la toute dernière vidéo bi nga xamante ne euh, génne nga ko koko lu ñu nëbb waaw jikko yi ñoo yàqu. Mhm. parce que moom laa di wax chaque jour. Mhm. nit mën nga nekk nit relation ngeen di génn dara ñaawul. Mhm. ngeen xëy suba rek am ay problème rek affaire yi commencé nga yoroon vidéo am bëgg ko tas. wala nga yoroon vocal am bëgg ko tas wala nga waxtaan ma ak yow ñu waxtaan. ci vocal ci njëkk teraanga tak nga jël sa vocal tas ko wala ma jël sa vocal tas ko. ñuy maye mayetu sutura. Mhm. Zeka bu ma la bëggee jox dama lay ñëw ne la waaye mais grand. mais naka la kii ñëpp jox la ko pour bañ pour non non non pas pas kii sax mais Zeka naka mu. waaw man ni ku lay nuyu waa si sutura jox la ko mhm, suuf. Mhm, mais na ngay bàyyi tant que Zeka newu ma kii ma ne la Zeka. maanaam jikko te en ne ñun ñun way leneen. ñu war leen ni mën nañu way tem. way musique bu neex. moo tax ma way nëbbal ko.

je l'ai travaillé avec père Jimmy c'est mon père. ak Akim. ok Akim The Boys. Mhm. ah ak Mëgëy Mëgëy Seck. Mëgëy Sek, moo tëgg moo tëgg moo tëgg percu yi. Mhm. waaw Mbacke produire. parce que ñi ngi wadjal album bi nii. Mhm. incha allah dans peu de temps ñu génnee ko may ko Sénégalais yi. comme woy wu yété yeetewul ay naxata la motax légui ñi ngi jéma xol nan la ñuy waayee pour ñu xamné ñi ñi ngi wayé ay thèmes parce que xale day màgg. waaw ah, bëgg tamit musique ce n'est pas difficile de copier le plus dur c'est de créer légui dañuy créer mélodie yo yoo xam mhm. ne. dañ xam ni kii mi ngi ci yoon lolu loolu la waaw lolu kese la. Mhm. alors euh, depuis mu génnee yan yan retour nga ci am. machallah ay mag ay mag kon sunu père sunu pap gisee pen. Mhm. barki démb Ndiaye message na ma. félicité ma ci kii ak ak ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Charles bu Vibe Radio allah ñoom ñëpp woo nañ ma ah ñu bari euh, rafetlu nañ tamit morso bi Titi Titi Titi ma koy nuyu de passage sama grande sœur mhm. waaw macha allah moom tamit ba ma ko envoyé son bi daf ko déggoo pare woo ne ma son bi nice daba sëy tamit woo ne ma son bi nice inchallah macha allah kon sante yalla kon sante yalla sante yalla non la démé mm-hmm. motax euh, euh liggéey rek moy moy moy moy moy moo rek té incha allah duñu ci di liggéey di bégal sénégalais alors pour, terminer l'émission donc euh, Médina c'est fief mm-hmm. euh, tay ban sentiment nga am li la ak wa Médina waaw loolu lu fort la mm-hmm. on peut même pas l'expliquer man ak waaw Médina lu fort la loo xam ne man xaw ma parce que Médina moo ma def ni ma mel tey mhm. ñoo ma dooleel surtout sama waa gox ñoo ma dooleel waaw ak Gueule Tapée ak Fann ak Colobane ak Fass parce que dañoo bokk dañoo bokk ak Colobane dañoo dañoo ak Gibraltar mhm. maanaam dafa def ni mhm. plateau rëbës dañuy ñëw ñoo ma dooleel ba ñu nii macha allah léegi Pikine fépp laa may ñëpp ñëpp ngi ñëw ba mhm. Mhm. Paris Italie mhm. Espagne États-Unis Canada ñëpp dañuy bëggee loolu la sant yàlla la maanaam ñu ngi c'est cas daal affaire bi mu def la café non merci café euh, non merci noonu la demee moo <laughs> tax euh, je suis trop café noonu la demee moo dañuy dañuy boo amee ñu topp sa ginnaaw wal leen lu leer parce que musique dina toll benn moment boo xam ne folklore gi day bari dëgg la ñun folklore bi ñu ngi liggéey mhm. dañu mën nit ñi def effectivement te dañ koy teg ci yoon mhm. bugguñu jàdd yoon bi moo tax sànq ma lay wax may topp ci suñu mag yi mhm. ah, su may naw le ma respecte leen après tu avances tu avances alors pour pour euh, sànq ne woon naa pour terminer mais cette fois ce sera pour terminer tu es tu es euh, tu es euh, tu es très attaché à ay xarit yo xamantene ne ñu ngi ci musique sénégalaise nga seq ak ñom machallah ay relation yu nice mm. parce que saa yu ñu dajé dama gis ni ngay mel ak ñom na ci cité Tarba mm. euh, na ci cité ñom Abiba mm-hmm. jeune génération bi daal alors comment tu fais qu'est-ce qui te motive tay nga ne attends je pense que ñi duñu samay c'est pas une compétition. Hein, mhm. mais peut-être ça nawle la la mhm. nit da ngay fonk mhm. parce que du compétition. du guerre. du du du man suis lay japp li sama là sama morom gis mais dafa am ño xamni nit hypocrite wala eh. aw ma ñeenti xarit aw ma kii benn xarit laa am ci musique mhm. mais ñëpp samay nawle lañ samay xarit lañ dama leen bëgg mais tar ba Mbaye mooy sama xarit dëgg la parce que man ak moom du musique mhm. sama waay la mhm. moom sama gain la waaw noonu maa moom dafa am lu lu liyee lu doy tar ba tey bu ñëwee sama kër fii day lekk bu ma demee këram léegi fekk ko muy lekk damay lekk waaw wax laa la wax de te ba am na ñoo xam ne bu ma demee seen kër je jamais manger <laughs> la wax nag. wax gu rëy merci beaucoup El ça ça a été un plaisir man c'est toujours un plaisir mais c'est ak yow parce que voilà tu tu euh, comme ni nga comme je dis tout le temps ñun moom euh, kenn moomuñu. mais bu mhm. ñu gisee ñi nga xamante aussi mhm. vraiment. mel nañ ni ñu war a mel mën ak di je pense que yow ci mhm. merci beaucoup ci ça a été un plaisir. waa Sénégal 5 point 5 TV. 5 waaw 5 TV. 5 5 non 5 TV ouais. 5 TV. yàlla na seen jàmm yàgg yàlla na sut télé yëpp waaw yow ndax yow moom loo dugg dañ ci takk ndax yàgg nga jàppale El Hadj Keita mm-hmm. ci ay début mm-hmm. waaw ka invité nga ma rajo Zeka émission boo daan def da naan El Hadj Keita ñëwal ñëwal def playback ñëwal kii pare exemple saay sax mm-hmm. du doon ay kii ay genre spectacle yoo xam ne yu mag yoo xam ne euh, dafay xaalis dafay génn nga woo ma ne ma am lii lañ la jox pour nga jouer playback ma ne playback yi mais dafa nga ci corona ba léegi du nu mu demee noonu <laughs> xanaa moom corona bi li leen bokk mooy mooy ñu la demee mais sant yàlla sant yàlla ndax yow yàlla dina la fay sa xol ndax yàgg nga jàppale artistes yëpp du ma ne man kese mhm. ndax xam naa ni ma daan bu ma daan playback mhm. dama daan ñëw di fekk yeneen artistes kon yow yaa jàppale artistes yaa doxal musique yaa koy doxal mhm. te macha allah ci merci beaucoup merci beaucoup encore une fois merci beaucoup ça a été un plaisir ñu ñëw seq waxtaan ak ki nga xamante ne mooy El Hadj Keita ci euh, Star vous revient très très bientôt sur la sur votre euh, chaîne Sénégal 5 tvcom point com gars